asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Ousmane Dramé vous le réveil euh, dañoo del siwaatoon cette fois-ci euh, dell duy xamal réew mi ngeen Ousmane Sonko nekkul ne moom képp moo war a tabax réew mi Ousmane c'est un ingénieur boo xam ne présenté nañu un projet ñu xool projet bi ñun ñëpp ñu bëgg ko ànd ci ak moom war ci jublu muy projet boo xam ne taak taak jotuñ ci assemblée nationale duñ ko mën a tàmbali wala buñ dul ci assemblée nationale di xaar élection présidentielle yiy dikk pour Ousmane maa jël contrat bi moo tax première tentative bi mooy législatif yi erreur boo xam ne defoon nañ ko ci local yi nan fexe ba erreur boobu bañ a am lépp luñ mayoon Macky Sall nañ fexe ba buñ ko ko mayeti lépp lu Macky Sall imposé te dëppoowul ak réglementation bi nañ taxaw lànk teg suñ bakkan ndax élection yi mi ngi dikk te présidentielle yi dikkagul te yi dikk tey buñ ci jotee mën a commencé dajji système bi moo tax mooy élection yi am solo euh, ma di leen fàttali encore ne Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane bëggut loolu nuuna nuuna nuuna nuuna la bëgguñ ci ko wax ndax Ousmane bu dee ingénieur bu xara la mën a toj ab système dajji am réew defaraat ko moom niveau architectural bu mat sëkk am xam-xam bu wóor boo xam ne ma design bi wér na lépp loo xam ne laaj na ko askan wi war a taxaw bu askan wi taxawut dara du sotti bu askan wi góorewul du sotti bu askan wi jàngur ci la paase dara du sotti te bâtiment nag ki koy liggéey muy ingénieur bi nga xam moo taxaw gérer bâtiment du tegi mool du raax te du dër te du karale c'est un ingénieur bu taxaw ak plan plan bi nga xam ne moom la design na ñun ñëpp ñu ànd ceeg moom moom la téye waaye ana ñu war a liggéey c'est nous les ouvriers nun nooy ouvrier yi bu dee Ousmane Dooma dara du sotti c'est nous les ouvriers ñoo war a ànd ak moom mu gàddu le projet solution fu fu jaaxe woo ko mu teg mu ci yoon ba pare bokk ci ay équipe équipe yi nga xam ne bu dee électricien bu dee maçon bu dee kuy raax ak lépp loo xam ne ma nga ca Ousmane da ci am knowledge bi ñoo da ci ànd ak nun waaye bu dee moom donga du mën ta jéggi tànk dafa mel rek législatif yi noo mën a jóg gañe jox ko waaye moom ket bu demee dara du sotti nit yëkkatee législatif jox ko yëkkati présidentiel jox ko ko noonu lañu war a jóge nag yëkkati tous les moyens matériels tous les moyens à bord jox ko pour mën a ànd ak ñu liggéey Ousmane képp mënul dara waaw lam jàng falayam nun nag nooy ñi nga xam ne ñooy ouvrier yi ñooy maître maçon yi ñooy calculateur yi ñooy géomètre yi ñooy lépp waaw te defe naa ne kuy tabax ah, soxla nga un géomètre soxla nga un architecte soxla nga un euh, construction management soxla nga yu bëree bëri yoo xam ne mooy tax li liggéey sotti Ousmane pour mu liggéey Sénégal il faut ñu jóg jàpp ci waaye Ousmane Ousmane Ousmane encore une fois Ousmane képp mënul dara tant que ñoon jëluñu la responsabilité jóg taxaw jubbanti te ànd ak moom te di ko déglu te ànd ak dal di waxtaan ak moom te mu teen bokk xam ne Ousmane mën naa juum te bu du juumee noonu fit ne ko lii de ak di lii mënoo lijjanti leeral lanu ba déggoo ci ay point yi demati un ingénieur de bâtiment un ingénieur de bâtiment de plus petit ouvrier mën na ko corriger ndax ouvrier moo fi nekkoon ak maçon yi yéen doo fi doo ak ñoom li mët xam na ko li manqué xam na ko te mën naa am ingénieur bi joxe tegtal ñu aw ci weneen yoon kon apprenti bi indi chantier bi fekkee ne loola te mën na ko àgg ci pénc ma ba dee si jubbanti naroon a yàqu kon Ousmane a besoin de tous les Sénégalais tous les Sénégalais bu leen nag Ousmane Ousmane yem ci Ousmane c'est notre architecte moo indi plan yi teg ñu ci ànd ak moom liggéey te bu ko kenn seetaan bu kenn bank sa loxo Ousmane du jiit ñëpp ñuy ànd dem kon may jéggul te ñaan jàmm yal na yàlla sutural yal na yàlla indi jàmm ci réew mi Ousmane mi tabaxal na tabax yoo xam ne ci yoon day jaar peace and man la Ousmane Dramé bu la defee des consciences jàngeen jëf jaa jëf